Ousmane Sonko li mu joxee ci ndigal ci point de presse bi nga xamante ni mu ngi ko doon amal ngir ne daanu amal concert casserole ak i klaxon alarba gi lañ koy door nag vingt bu jotee jàpp vingt heures dix ngir ñaawlu li nga xamante ni moom la ñu ne rek ay doxalin yu Macky Sall nekk di amal ci réew mi te àndul dara ak luy jëmale démocratie ca kanam buri yi ni xeetool comme concert casserole bu Ousmane Sonko woote ak li nga xamante ni moom di klaxon yi rek mënees naa indil ay gàllankoor yu mag a mag ci wér gu yaram ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi loolee mu nekk xalaat ñu bëri ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum wér gu yaram boo ko féetalee itam ci wàllum loi ñu bëri itam joxe nañ ci seen xalaat gis ni ministère environnement am na benn ci code wi nga xamante ni bu ci sukkandikoo rek bu fekkee pollution sonore googee arrangé wul askan wi mu jël ci ay ndogal nee nañ sax loi ay dat na prévoir lenn ci ay daan yi nga xamante ni ñu ngi ko xayma ci 500000 japp 2 millions de francs CFA bu ñu sukkandikoo ci décret numéro 2001. 282 bu 12 avril 2001 docteur un Dieng Mom, ab kat la nek itam ci institut des sciences de l'environnement ci faculté sciences techniques université Cheikh Anta Diop bu Dakar. mo gisee li ni mel di ni concert casserole ak klaxon yi nga leader Pastef Boki itam ci ñu coalition Yewwi Askan yi na am ay jeexital ci wergu yaram